noonu la ñuy doxee murit boo seen muy liggéey xamul sëñ Tuubaa gi day na ko soxlawul keneen ko xam soxlawul ko ko sant soxlawul ko ko fay ndax xam na ni sëñ Tuubaa xam na te mooy fay murit boo seen muy liggéey noonu lay doxee waaye nag dafa di wolof dafa wax ni waaw góor yàqul ngóor a da ko yokk loolu moo sabab kilifa yi ne waaw góor bëgg ñu jottali leen ko seen kilifa yee ngi leen di sant di leen gërëm rawatina nag soxna yi soxna day wax dëgg yàlla seen liggéey bi nga xam ne liggéey ngeen ko kilifa yi gis nañ ko Serigne Touba mi ngeen koy mi ngeen koy liggéeyal gis na ko Serigne Touba nag liggéeyal ko ku xam li ci nekk da nga ci sawar ndax Serigne Touba liggéeyal ko fajuk aajoo ngi ci jot say mébéta ngi ci ndax moo ko waxal boppam wax di xawaayij alladina daamu fi xidmati wa ablahum maaraamu ñi nga xam ni ñoo sax ci di ma liggéeyal fajal leen seen aajo te lépp lu ñu sàkku nga jox leen ko loolu rek jar na liggéey Serigne suñu yitte yu bari yii liggéey sëñ Tuubaa dong moo ci gaaw ndax sëñ Tuubaa ñaan na ko te sëñ Tuubaa ak ñaanam lu yàlla def ba noppi la kon nag képp koo xam ne xam nga loolu na nga góorgóorlu ci liggéey sëñ Tuubaa waaye nañu bàyyi xel ni euh, daa maanaam euh, lazina daamoo la wax daamoo daamoo nañ ko bàyyi xel waxul rek léeg-léeg nga def léeg-léeg nga bàyyi xam naa sax sëñ Tuubaa lu ko waaye defal donte benn la mu fay la ko waaye nag ku bëgg bokk ci ñaan bi da ngay saxal liggéey bii nag. kenn liggéeyalu ko liggéey bu ko gën a liggéey bii ci Touba kenn la gën a liggéeyalu ko liggéey bu ko gën a liggéeyal ko ci Touba ndax Sëriñ Touba dafa bëgg Touba bëgg goo xam ni amu ci sago ne ndax dafa wax ni Touba li tax ma bëgg ko day pàkk boo xam ne benn la ci kaw suuf sunu borom teg ko ci ganam góor yàlla yi góor yàlla yi yëpp di wuti ko Touba tànn ma tànn googu mu ma tànn nag looloo tax ma bëgg ko Touba moo tànn Sëriñ Touba. te muy pàkk boo xam ni benn la ci kaw suuf góor yàlla yëpp bëggoon nañ ko ñëpp waroon nañ ko koy xor-xoroon di gis gisoon nga leerab Tuubaa bëggoon nga ko waaye Tuubaa ci boppam moo tànn boppam sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nee na looloo tax aw ma ci sago ñàkk gi sago kiimaan la woon ndax njaareem nit ñi xamoon nañ bëgg gi sëñ Tuubaa bëggoon bëggoon dëkk bi ba nga xam ni nit jaral na ko sax xëy fexe ba dem Tuubaa ñëw na ko damaa demoon Tuubaa damaa demoon Tuubaa danañ ci jàmmante yow dara la ca laaj loo xam ne loola képp da lay jaral paas ñëw Touba képp ku ko ni damaa demoon Touba dana la may ci yitte loo xamante ne lii laaj la laaj la dëkk bi sëriñ Saliou Mbacke ridwanullahi alayhi nee na sëriñ bi daana laaj dëkk bi bay laaj paftani paftani paftani sax da ko daan laaj ndax fonk dëkk bi kon paftani moom day mel ni suñuy dëkkandoo lañ ndax ni sëñ Touba daan laaja nit ñi sëriñ Saliou nee na man noonu la sëñ bi daan laaja paftani ana barab ba man ngi fay bari paftan rek am na yoon wu mu koy nettalee woo xam ni la tegu ca loolu damaa déggut lépp te bëggumaa wax lu mu waxut waaye am na lu mu ca teg lu rëy lu mu wax ci paftan yi nee na sëñ Tuubaa dafay laaj kooka ne ko ana barab ba ma nga fay bari paftan rek daal di say teg na ay kàddu yoo xam ni moom moo koy nettali waaye nag dégguma la ca des déggu leer bu ma koy mën a nettalee waaye ku bëgg barab bay laaj ñax ma ak garab ya loolu wa na ni sëñ Tuubaa bëgg gi mu bëggoon Tuubaa na loolu moo tax mu wax ni képp koo xam ni kii siyaare si nga sunu borom jéggal la képp koo xamante ni kii liggéeyal nga ko sunu borom jéggal la ko liggéeyal sëñ Tuubaa fajug aajoo ngi ci jot say mébét a ngi ci waaye nag nañu xam ni njéggale ngi ci euh, euh, euh, fajug aajoo ngi sëriñ bee ko ñaanal boppam te nag nañu xam ni ñaanul sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ba muy ñaan ñaanul ngir am daa ñaan rek ngir jàmm yàlla waaye moom lépp loo xamante ne xelam dem na ci ba mu war koo ñaan sunu borom da koy def wax na ne xalimaam balaa bind sunu borom daa def ba noppi xët bu xalima sëñ Tuubaa mësta bind lu sunu borom def kon lépp loo xam ne gis nga mu bind ko jàppal ni lu am ba noppi la ba mu ko daataan bind loolu bindkat bu mag misaal na ko boo xamante ni bii ci yoon yu la bokk sëñ Tuubaa ko yar te it lu mu wax ñu bari gëm ko misaal na ko nee na ca gamoo sëriñ bi mas nay bind a aoudu billahi aoudu bi gawdureta min asheytani irajim rabbi aouzu bika min hamazati shayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruun ba mu bindee ba egg ci rabbi war a bind an yahduruun yi xalima gi ci boppam moo bañ mu jànkoonteeg moom def lu ñuy def xalima gu bañ nanguwut mu geesu ndeke ab tubaab daa taxaw ci wetam xalima gi bu bindoon an yahduruun yi dana bind lu ba amut ndax seytaane yi ngi taxaw ci waaye booba sëñ tubaab sax gisu ko xalima gi ci boppam moo bañ ba mu demee ba mu ne teg ba tubaab bi dem mu bind xalima gi nangu nee na loola la ko la loolu mooy firndeel ni Serigne Touba du bind loo xam ne yàlla def ko ba noppi lépp lu xalima gi bind lu am ba noppi la kon xam ni ñaan la yoo xam ne yàlla da koo def ba noppi mu soog koo ñaan te nee na képp ku may liggéeyal képp ku sax ci di ma liggéeyal fajal aajoom te lu mu sa lu mu def wa kullu man xadamani aw zaara faxfir lahu képp koo xamante ni kii liggéeyal na wala mu siyaare suma jéggal ko njéggal yu yàlla googu jar na liggéey sëñ Tuubaa xasida yi ay ñaan yi ci nekk yoo xam ne ñu liggéey sëñ Tuubaa képp ko moom loolu jar na liggéey sëñ Tuubaa góor yi góorgóorlu leen sëriñ si góorgóorlu leen liggéey sëñ Tuubaa kenn dina defut lu ni toll ndax ñaani boppam yi nga xam ne def na ko te li mu ñaan sunu borom am def ko ba noppi eh, sëriñ bi nettali na ma ni li te eh, sunu bo sëriñ sëriñ Tuubaa li muy ñaan da koo ñaan ngir jaamu yàlla waaye fekk na yàlla def ko ba noppi ñaanul dara ngir am ndax moom lépp lu xelam def yàlla def lépp lu xelam dem yàlla def mu ne ma ci ñaaree benn bis sëriñ bi mas naa génn cib néeg mbaggam laal guccuur bi guccuur bi guccuur bu ngeen ko xamul mooy néegi néegi mag ñi ñoom xam nañ ko néegi néegi baraag yi seng yi seng yooyu ñuy lonkal di ko ci def ngir muy taatu ndox mi di ko sotti loolu moo tudd guccuur dafa amoon mbaari seng néegi néegi ñax yooyu day mbaagi mbaari seng da ko séqoon néeg bu nekk buntu sarale la ñaari mbaari seng ñoo ko séq mbaar mu ne def na jëb guccuur ngir muy duy daa yi sëriñ bi bi mu génnee loxoom laal guccur bi nee na taw bi dañuy yuréet ci digg noor la ci saasi mu ne ndax xam dañoo defee ne damaa soxla ndox dañoo defee ne damaa soxla ndox nga xam ne ñi yàlla liggéeyloo jox koy liggéeyam lépp suñu borom daf leen a lépp lu sëriñ Tuubaa bëgg nañ ko def te mënuñoo xam bëggam moo tax ñuy nattale loxoom laa guccur bi képp taw bi sotti mu ne ndax xam dañoo defee ne damaa soxla ndox koo xam ne nag lépp lu sa xel dem yàlla def ko sa bindkat bii ma wax misaal na ko ci téere ba nee na eh, Cheikh Issa Dieng ridwanullahi alayhi Sëriñ Tuubaa da ko mas di bindub leetar ba mu bindee Issa Dieng nga des se mu bàyyi ko ba mu ko bàyyee leetar ba ba demee ba mu bindee Issa Dieng nga des mu bàyyi ko ba leetar ba demee ca guddi ga Cheikh Issa gis ay jinne yu mbooloo bu bari jépp koo loolu waaye mënuñoo egsi ci moom mu daal di xëy yebal ndaw ci sëriñ ba ne ko man kat damaa jaaxle ndax biig damaa gis mbooloo mu bari mooy wut si ba ko ndaw la waxee loolu ba noppi sëriñ bi ne ko ba ma koy bind leetar bi damaa bind Isa sama xel dem ci ji bëgg a jenn sama xel dem ci jinne ma xam ni bu ma ko bindee ñu lor ko ma baax su ma ko bindoon ñu lor ko waaye ginnaaw bind ma ko ne ko duñ ko wàññi dara nga xam ni yooyu jinne yooyu ak mbindeef yàlla yooyu dañoo jàpp ne Sëriñ Tuubaa dañu yebal ci kooku lépp lu nekk ci xelam képp ko yàlla liggéey loolu loola ngay yittewoo kon dañoo xam ni sëñ Tuubaa ay ñaanam duy ñaan waaye def la lu yàlla def ba noppi la kon képp lépp lu mu ñaan képp ko mën a taatan ñaan googee na nga ca góorgóorlu taatan ñaan gi nag li ci gën a gaaw mooy liggéeyal ko liggéeyal bi mi ngi nii Tuubaa kenn na liggéeyalu ko lu gën jamono bii nu toll kenn gën a liggéeyalu ko lu ko gënal Tuubaa lu ko gën a liggéeyal ko ci Tuubaa te it nag ma lazina daamoo la wax kon da ngay saxal weer wu dee nga joxe sa ñaari téeméer soo ko defee dumta ala xidmatal xadim bu boobaa ñaan gi yaa ngi ci biir bu boobaa su fekkee weer wu na nga joxe sa ñaari téeméer na nga xam ne sax nga ci liggéeyal Serigne Touba ba yaa ngi ci biir ñaan gi bu dul loolu nag lépp lu waaye defal Serigne Touba dana la fay waaye nag dugg ci ñaan gi moom saxalay tax kon nag saxalal boo saxalee weer wu dee nga joxe ñaari téeméer yu ñëw ñu ñëpp si liggéey Touba bi ñaanu Serigne Touba gi ku nekk ci biir yaa nga ca ku nekkul ca biir yaa kon kenn ku nekk góorgóorlu ba weer wu dee nga joxe sa ñaari téeméer ngir nga dugg ci biir liggéeyu sëñ Tuubaa bi et puis ci biir ñaam sëñ Tuubaa bi ak ci def-defu sunu borom bi nga xam ne coobareem la kon sëriñ saa ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm rawatina yéen soxna si seen soxna yi liggéey bii nga xam ne liggéey ngeen ko fi te yéen képp amu leen jot yoru leen dara ay fortaatu rek ak di dem ci marché ba nekk ci liggéey ba noppi te bu joxe joxe jotee ngeen man góor ñi naka jekk jigéen ñi man góor dëkk bi moom nekk jekk ji na jigéen ñi mën góor loolu nag yàgg na ci lislaam jigéen ju mën góor moom yàgg na ci lislaam waaye yoonu murit nag daf cee rawati yoonu murit moom naka jekk jigéen ñi mën góor xam naa soxna jaara tax ndax soxna jaara moom moo mën góor ñi kon nag jëm jigéen jigéen du ko roy góor goo dendal da ko mën te nag Cheikh Ibrahima Daraan wax ni Cheikh Ibrahima Daraan wax ni liggéey bi sëñ Tuubaa koo ca yebal koo ku ca yebal sa doom bu ñëwee di ku ca yebal sa dongo bu ñëwee di sa naka noonu it kon ku ca yebal sa soxla it bu ñëwee di sa borom kër rek <laughs> te nag loolu mi ngi bëgg a fis de ndax fi mu ne nii booy laajte kër boo laajul soxna sa da nga a fay go gox gox yi foo fi dugg di laajte naan ana kër sa abi bu yóbbu ana kër nangam ak nangam <laughs> nu soxna sa tudd lañ lay wax man damaa laajte ba taay waaye dañ naan man nu soxna loolu nag amul fenn fii rek laa loolu day wane ne man gi jigéen ñi man góor ñi ci liggéey seen tubaab bii seen tubaab ngi leen di bëgg a jiital de bu nu yaafusee léegi jigéen ñi jiitu da leen egg ci ndax koy fooy laajte koñ boo dugg di laajte boo ta laajul tur soxna sax boo laajee góor nga sax dañ naan la nu soxna am tudd dara waru ko lu weesu man giñ man góor ñi ci liggéey kon nag yéen jaaraama yéen da ngeen liggéeyal sëñ Tuubaa yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko jigéen ña jigéen ñi ñëw jàmbat ko ne ko góor ñi day dañoo dem ak yool yi ndax nun bu nuy julli nooy ànd di julli bu nuy woor nooy ànd di woor bu nuy nattaa sa kanoo koy defandewoo waaye nag ñoom ñoo féetewoo jihaad ji mm. kon nag day mel ni ñoom danañ ñu raw mu ni leen déedéet seen jihaad defal nañ leen ko ca seen kër ak seen i borom kër oh. kon yéen seen kër yi ak seen borom kër yi ca ngeen tolloo góor ñi su ngeen leen fekkee ci bi rek ndax ba ngeen nekkee ci seen ci seen kër yi di liggéey seen liggéey ba di liggéey seen borom kër yi la yàlla may yool bi mu defal buur bi ci liggéey bu ne boo defee loolu ba muy sa warugar ba noppi nag nga wëlbatiku ñëw ci liggéey bi fekk ci góor ñi da ngay daal di mën loolu nag moo dal jigéenu Tuubaa yal na leen yàlla may fanu gudd yal na leen yàlla may gu wér yal na yàlla taxaw njaboot gi yal na yàlla barkeel seenu njaboot bañ noppal leen te yàlla yokk seen wërsëg bu wér a wér may seenu njaboot li ñu bëgg ba lépp lu ngeen bëgg a liggéey seen Tuubaa ngeen man ko sëriñ si nee na jërëjëf jërë ngeen jëm jërë ngeen jëf Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg sëñ Abibou Mbacké yàlla na fi yàgg kuy liggéeyal seen Tuubaa ci Tuubaa si kanam yàlla na fi ku liggéey seen ci beneen kanam na fi yàgg waaye nag hmm. waaye nag li may mujje mooy dund ci Touba te koo ci Touba ca kanam waxuma la taalibe waxuma la njullit waaye ak ngor fekkewu ko ngor ngor dund ci Touba te bokkoo ci Touba ca kanam ngor fekkewu dund feneen te bokkoo ci Touba ca kanam ak taalibe fekkewu ndax seen Touba leel Touba ca kanam di liggéeyal moo yorub liggéeyal fii mu ne nekk ci Touba fu taalibe ne da ngaa war bokk ci Touba ca kanam rawatina nag kuy nooyee Touba kuy nooyee Touba foo xëyee foo ëppee sa ñaari téeméer nañ ca dem bu ko matee ëpp na ko ëpp waaye su ko mënta ëpp rekk waaye sa ñaari téeméer lu mu néew néew na ko def ci Touba ca kanam moo di taalibe moo di njulit moo di ngor góor ñi nag jigéen ñee leen ci man de koñ ba ma dëkk la fay génn jigéen ñaa ko fay génne man sax jigéen damay soññi man mii sax jigéen damay soññi mooy ñëw daggal ma ne ma joxeel ma joxe waaye bu dul woon mooma yàcc laay def na góor ñëpp góor ñu bari dañ la yàcc nañu góorgóorlu nañu liggéey sëñ Touba ndax sa bopp baaxul te jigéen ñi lee lee ñu raw sëñ Bay Jaxate doon na wax ni sa soxna sa soxna raw la du dana lekk mu yeewu ca njër di war ngeen xatt dina raw ku koy def sa soxna dana la jiitu sa soxna it ku muy liggéey sëñ Tuubaa ngay tëdd dina la wala nga nekk sa bopp sa soxna dana la man te góor nag soxna am jiitu ko ci lay ci yàlla du ndamam te ku la mën ci liggéey sëñ Tuubaa man la wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ci tawféex gi mu ñu defal ci jëmmi sëriñ bi santaat yàlla bu baax ci tawféex ji mu ñu defal ci liggéey ci liggéeyal sëriñ bi noo ngi sant yàlla bu baax ci dimbali gim nu dimbali ba nu bokkaat teew fii ci njeextalu atum tubaab mi ngir fas yéene soññante ci liggéey bi ñi ngi sant bu baax waa commission massification ci njiital sëriñ Baara Mbàkke ak mboolem ñi mu àndal moo Modou mbay mi toftalu ci moom di leen sant bu baax di leen gërëm di leen jaajëfal ci seenub taxawaay ndax dajeb bi firnde ci seenub liggéey ci diirub at mi waaye di sant bu baax a baax soxna Bintu Mbàkke moom sëriñ Abibu mi nga xam ne mooy jëwriñu soxnay Touba ca kanam liggéey bi ku ci sonn la ku ci jàpp la mboole moom ak mboolem soxna yi mu àndal tey daje bi dajab soxna yi la ndajem santante la ndajem sant yàlla la ndajem sant sëriñ Touba la bu ñuy wax nag soxna yi seenu njàmbaar seenub liggéey bu am solo ci Touba kanam cant gi danga koy tàmbalee ci soxna si nga xam ne buntu këram lay teg palaat teg ca caaf di ca dajale fukki dërëm di ca dajale fukki dërëm di ca dajale ñaar fukk di ca génnee ñaar téeméer di dugal ci Touba ca kanam weer wu ne am na soxna soo xam ne jaay jën lay liggéeyee ndóobin ba lay xëy fajar bu njëkk lay jóg lam yi dajale da ciy génne ñaar téeméer di jox Touba ca kanam cant gi day dem ci soxna si nga xam ne xolli gerte mooy liggéeyam yor machine u xolli gerte di puus di ca dajale di ci génne ñaar téeméer di def ci Touba ca kanam cant gi day dem ci soxna si nga xam ne ca marché ba la nekk yor taabal di taaba taaba di ca génne ñaar téeméer di def Touba ca kanam cant gi day dem ci soxna si nga xam ne moo yor tontine ci koñ bi ñu tegal ko loxo loxo booba mu cay génne ñaar téeméer di dugal ci Touba ca kanam cant gi day dem ci soxna si nga xam ne ab caissière la ci benn magasin wala boutique lañ koy fay salaire mu cay génnee di jox Touba ca kanam cant gi dina dem ci soxna si nga xam ne liggéeyam mooy fóot ñu koy fay wala di dem ci kër yi bindu fa ñu di ko fay par mu cay génnee ñaar di def ci Touba ca kanam cant gi dina dem ci soxna si nga xam ne ab sang la ci njabootu sëriñ bi la bokk waroon a toog di soññee mu takk ndiggam jiitu ci liggéey bi di woote nit ñi di ko fekk si di ànd ak moom di joxe ñaar téeméer ci Touba kanam cant gi dina dem ci soxna si nga xam ne ànd ak yi yëpp yëmu ca waaye da caa boole di fexe ay mbooloo du diggu ci liggéey bi cant gi dina dem ci ci ki nga xam ne euh, moo jiitu ki nga xam ne bu joxee ñaari téeméeram ak nu ko mën a taqalee xaaru ca xaaru ca bu subaa wala bu ngoonee wala bu déwénee ñu ñëw ci quartier defal ko dara ñaar téeméer yi muy joxe da koo joxe rek ngir yàlla ak ak jëm di sëriñ bi ak dëkk bi fu fi dem baax na te na ne loolu mooy pastéefu soxna yi mbokk yi bu ñuy waxtaan di jàngat dañuy gis ne soxna yi ni ñu posté foo ci liggéeyu Touba ca kanam bii niñ ci mane noonu lañu ñu mane ci kër yi niñ ci mane noonu lañu ñu mane ci taxawu njaboot gi bu loolu amee nag mbooloo mu mel nii nga xam ne tey bu fekkoonte ne mbooloo mu jëmoon ci leneen la am na ñoo xam ne noppi nañoo nangoo fay ay millions ngir ñëw toog fii yëkkati fi kaddu ndax dajale mbooloo mu doon benn dafa bari ñu ko soxla ndax dañ ko mën a jariñoo ci wet yu baree bari Euh, entreprise yi nga xam ne dañuy liggéey ci bu bouillon gis ngeen li ñu daj ci communication ak publicité bu ñu amoon mbooloo mu mel ni duñ ko gëmee loolu nag bu amee war naa bokk ci li ñuy sargale mbooloo mi li ñu delloo njëkkal soxna yi ñu fexe ba di leen xalaatal loo xam ne bu weesoo ñaar téeméer yi ñu dajale di ko def ci liggéey bi te loolu mooy lépp njariñ lépp lu waay di bëgg ma nga ca am yeneen njariñ nag yoo xam ne day dellusiwaat day delluwaat ci seen jëmmi bopp yi tàmbalee ko ci li ma koy wax bari na ñu tàmbalee ko ci fexe ba jàppalanteeg soxna yi ci seenu nekkiin ci biir kër yi li ma koy wax bari na ci Amar mënoo xalaat nit koo xam ne ca jamonoy maam ba tey bu xëyee bu aayee ab liggéeyam mooy yendu ca waañ way yendoo togg ba jant bi so warees naa mën a xalaat tëral programme yoo xam ne nit ki du yàggati ca waañ wa warees naa mën a xalaat tëral programme yoo xam ne li ñuy jëfandikoo ci ci waañ wi lu ci bari mën naa wàññee ko gis nga fi mu ne këriñ ak gaz bokk na li gën a soxla li gën a sonal borom kër yi waaye rawatina soxna yi ndax soxna yi ñooy borom kër yi te ay xalaat ak i solution yu ci bari am na te Touba ca kanam avantage am ak occasion bi mu am mooy bépp produit bu mu am ndax beneen entreprise bu mu am produit bu mu am lay doon jafe-jafeem mooy nu muy def ba am clientèle Touba ca kanam am na clientèle ba pare li am solo mooy na produit bi ñëw doon bu baax bu am njariñ ñu ko consommateur yaa ngi nii toog di ko xaar loolu nag Touba ca kanam da cee war a xalaat fexe ba jàppalanteeg soxna yi ci lépp loo xam ne mooy tax ñu gën a mën a jëm kanam ci aw nekkin ci wet yëpp soxna yi nga xam ne micro euh, ñi nga xam ne ñooy def microfinance léeg-léeg ñu am ay coono yu rëy rëy seen diggante ñoom ngir dañoo bëgg a yëngu amuñu fonk Touba ca kanam xalaat yi mu am jëmee ko ci taxawal ay kuréel yuy jàppalante ci wàllu joxalanteem alal dañ ko war a baral te jàppalante ci ak soxna yi nga xam ne takku na nga noppi doon yi jàmbaar kon noo ngi fedd li cant gi noo ngi sant yàlla di wax ne soxna yi nii ñu takk toowee lépp loo xam ne ay jafe-jafe la yu ñuy dund sëñ baara ci liggéey bi nañ koy dajee di ko wax kilifay Touba ci kanam yi tàmbale ko ci sëriñ ab euh, sëriñ Abibu ak sëriñ Abdul Ahad ñu taxaw temm ci saafara ko ndax Pastef ak yëg ak yëg ak Pastef bu nekk ak yëg moo ko war a fay te ñii wane nañ Pastef wane nañu njàmbaar ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di ñaanal li nga xam ne moom la soxna yi gën a bëgg mooy ak njaboot bu mucc seenu njaboot yàlla ci yàlla def mucc yal na leen yàlla defal barke yal na yàlla nangu seenub liggéey lépp loo xam ne lu ngeen di ragal la yal na leen ko yàlla dàqal lépp lu ngeen di ñoddi tamit njariñ yal na ko yàlla yombal ci mbaaxu sëriñ bi indi ko jàppandal ko teg ko ci loxo yi sant nañ bu baax gërëm nañ ñëpp yal na yàlla boole ñu defal ñu mujj gu rafet defal ñu texe ak àdduna ak alaxira jàppandalal ñu gërëmal sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum jëmmu sëriñ bi jigéen ñi ñoo fi man kon ñu ngi leen sant baax di leen ñaanal yàlla mi dimbali ak jàmm koso yàlla leen defal dimbal defal leen taw yaa ba ni ngeen yéenee liggéeyal seen waa lépp ngeen man ko day dugi te bañ ci am ngan ko te lépp lu ngeen def seen waa li tax ngeen ko yàlla leen ko nangu ñu fulal leen ko te day def leen bu yàlla waaye ngeen xam ne daal Touba ca kanam moom sa xëy bi waxoon na ko daaw jigéen ñi ñoo nekk ci kanam góor loolu nag néewaa na lu muy am lool waaye bu ma sëñ Touba moom bu yéeme rek man may am di jëlu sëñ waaye soxna yi seenu takk bi seen pësteef seen itte seen ak lu sonn ci liggéey bi wax dëgg yàlla kawe na ñoo ko sëriñ kon nag sëriñ bi ngi leen xamal ne daal sant moom lu mën doyoo waaye fa sant tàmbalee bu am yem sant na leen waaye a sa teewaan xet na di sa teewaan ngay àllaaxira yokk ndax moom suñu doom da koo fay lépp ñu la am njëriñ xet na àlla képp koo xam ne yaa ngi ci waawam jox looy dàq lu ne loola loola lu ne yàlla dana dana la gërëm kon fas yéen léeg-léeg gën a bu baax ci liggéey bii nga ne liggéey la boo xam ne kat liggéey bu yaakaar liggéey la boo ne kat liggéey ndax ni ko bi daa yomb na lépp loo yëkkati xooli taalibe yi jublu ko xamal ne sëñ bi waa ànd na loo jéem ci mbirum sëñ bi mu sotti ca saa si amoo ci benn jafe xamal ne sëñ bi waa jublu na loola Touba Ca Kanam na loolu feeñ nañ bu baax kon yéen ñi nga xam ne yéenay soxna yi na xam ne sant na leen bu baax jëmale na leen bu baax waaye nag soññee xay na bu mën a ñàkk ndax jaajëf moom ku jëf doo ko kon nag jaageen di baat bu la waaye ku jëf doo ko dégg kon soxna yi yéen jaageen jëf jaageen jëf seen jëf na mat na sell na. te Touba Ca Kanam gis na li ngeen di def te gis na njariñ yi tam gis nañ kon bu baax di leen daw la a baax ngeen am ci ndam nag ñu ngi sant góor ñi bu baax ndax bi ñuy lim kat lim nañ ay góor ñoo xam ne ñoom itam ñi ngi jaay wax suñu loolu mu rafet te ko te nga xam ne moom gën a jege te bokk ci ñu fi lim mu bokk jàmbaar yi nga xam ne yor suñu law ci moom sëñ Modou Mbaye bi kon moom cat so dóor ji dañ koy teg ci loxo ak mbooleem collecteurs yi nga xam ne ñi ngi jaay ak aussi ak ñu mën a nekk bu seen pëste ba seen jàmbaar ak seen itte ñu koy ndax ci liggéey bi que sëñ Mountakha daa waxoon dañ koy tàmbali daaw ta suñu fekk ko mu wax nañu lu mën a am la lu mën a gaaw la waaye itte koy tax mën a am ak ak jot massification nag seen jot ak seen itte jox nañ ko waa ci kaw ci njiitu sëñ Baa Mbàkke mi nga xam ne ku am na ku tàmbalee waaye dama ko yàq kon sëñ bi ñu ngi leen sant bu baax fab cant gi di ko teg loxo sëñ Daaw ak sëñ Mourou Mbaye ñu jàppale waa Kaas boobu ñëpp ndax li may wax naan boo limee da ngay fekk ay jàmbaar ne kenn mënu leen sam xel faay ko dafay jëriñ te seytaane dafa doole doole te daa mën a fàtte loo fàtte bu ko la jox ko ñi ci kanam ñi ci kanam moom xam ne ñeewal jël ñëpp te dana ñëw ko jot kon képp koo ne yaa ngi bokk bés bi ak moo ci bokk ak foo ci bokk ak foo rawatina ñi nekk waa ñu nekk gox yi ñëpp ñu ngi leen sant sëriñ bi ñu ngi leen sant bu baax di leen ñaanal liggéeyu seen waa bi a ngeen ko ci dina ci waaye nag di sant waa Touba Ca Kanam yëpp waa Touba Ca Kanam yëpp jàpp boobu dañ koy wax teg ko loxol ak Moussa Gueye ne xam nga mu ko àndaloon mboolem maam la woon Touba ci kanam a kon képp koo sa xalaat dugal ko ci a mooy li nga xam ne mooy bi mën nag ci mbooleem koo xam ne yaa ngi yëngu Touba kanam noonu tam la sante ñi nekk ci Touba ci kanam nga xam ne xaalis bi ñuy yor ñoom lay jaar ñoom itam ñu ngi leen sant ñi ñu xarit ko ñi nga xam ne mooy am salaat wala te ñu ko àndal ñëpp di maam bay sida ak soxna yi soxna Fatou Ndiaye soxna Père Diakhaté soxna Fatou Diakhaté ak mbooleem soxna yi nga xam ne ñi nga ànd ñoom bu liggéey bi leen jàppale ak képp koo xam ne yaa ngi wax wala képp jaay ak koo mën a jaay ak képp koo xam ne yaa ngi indi yow yaa soxla ak koo mën a jël ku mu ci mën a doon daal sant nañ la cat koo xam ne am nga mu xam la waaye yow li ci des na kon ñu xaw bu baax te yow suñu yitte ak suñu jom ak suñ pastéef ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax li ñuy bëgg tey ak ëllëg sëñ sëñ Tuubaa ko am te ci moom lañ ko yaakaar te moom dama moo ko a te it kenn du man dama kenn waaye kenn du mën na képp ku ko damay yett gaar ko denc denc ceeb bi bën loo ma jox ma tàmbatam rek su ëllëgee bu demee ba ca bis pénc ma jox la sa ceeb bi ubbil sa gaar bu ubbee loo ci fekk santal yàqu loo ci fekk bu ma bu ma xaw yàqu kon yaa kon kooku naxu kenn kon li am nañ ko dawal si buñ ko dawalee si bi danañ ko fekk koo xam ne fu dana kawe si jot ndax am na kenn benn ku sa jox sëñ bi moo ko addiya dee su ko fi yokkee lu ngeen am andi te yàlla bu ngeen andi ñu defal leen bët yàlla bu ëllëgee fay ga ak na muy toll lu ca waaye def ak néew néew fay ga ñëwee dana gàccaat jëf la la nga def tool kon addiya gis ko xel mu mën a toll nañ ko jox sëñ bi waaye nag Tuubaa ci kanam ji day liggéey boo xam ne képp ku ci engagé wu ba ngaa sa laxasaay ba ngaa yokk sa jom ba ngaa xet ndax sëñ bi kat dafa waajal lépp démb tey loolu dëkkam bii dëkk la boo xam ne ginnaaw boobu suñu doomam defalee lépp lu fi defal ni mu mu mel ni lépp la koo bind ñaan ko doomam ci te dafa wax ne moom rus naa ñaan yàlla loolu mooy borom waxoon na jumaa ji ba mu koy digle ne war nañ ma ko nag sotti na ba nag war nañ ma ne ay mel bu sottee te boobu ak ak tegu bu ngeen amee jëm def ko baax na su ngeen ko jóg def ñeneen danañ wàcc def ko waaye faaw dana am kon lépp ba min nag noonu la Touba Ca Kanam li ñuy def ci dëkk bi lépp sëñ Touba bëgg ci dëkk bi la ñaan ko ci dëkk bi yàlla defal ko ci dëkk bi ñu am taw xeer bi taxaw taxawal di ko def kon loolu ëpp naa def ci benn yaakaar sëñ Touba am doon ja nekk benn ci def sax suñu ñàkk dëkk ndax képp ku ciy def yaa ngi dëggal ñaanu sëñ Touba waaye yaa ngi ci biir ñaanu sëñ Touba bu nag waaye ci faj ci def suñu yitte ak suñu kër ak suñu nga xam ne kat lenn la liggéeyal bu gën ci kaw suuf liggéeyal sëñ Tuubaa amul ku bëgg a mucc tey ëllëg day ba ma nekk ci liggéeyal sëñ mas naa wax mas naa toog njeewal ba guddi mu jékki bi bi mu am mel ba mu tey mu ne ko waaw amatu bi xanaa amee ni ñu kenn ko mas a liggéeyal wala ku mas a liggéeyal ku mas a liggéeyal lépp xanaa ñi fi nekk kenn ku mas a liggéeyal wala ku mas a liggéeyal ku mas a liggéeyal lépp mu ne waaw loolu de mbàkke kumpa sama mu moo tax mënatuma na yooyu bañ ko laajee ñëpp so xamuñ ci ab yàlla koo xam ne ku la liggéeyal bu duggee ci bàmmeel wa ñëpp yëg ne dugg na ci bàmmeel ci ak texe ak njariñ kooku liggéeyal ko moo ne kon suñu dund yëpp nañ ko jox sëñ bi liggéeyal ko suñ boor nga xam ne ci la suñ dafa xet di nekk ci la suñ dafa àggaat kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañ teew na nga teew teewaay nga waxee te kenn ku nekk li nga ci jëf bu déwee ne yàlla na nga jëf lu ko jot suñ boor képp ku fi àndaale tawat yàlla na ko suñ doom saa ku àndaale aajo ak bu mën a doon yàlla na ko suñ doom fay kenn ku nekk yàlla la yokk suñ doom yokk yokk sa njaboot sa ak ci bari jërë ngeen jëf xam naa li ma koy tëjee nag mooy tey bis la boo xam ne ci kër yoon mooy am nañ ab xew-xew bu mag di wàcc liggéeyu sëriñ Abbas Mbacke moom ma teew di dawaay loolu sañ ko dawal moom ñu ngi sàkk mbooloo bépp ñu ñaanal suñu doom mi nga xam ne mooy gàtt bu jaamu gàtt ko su xéewal ci dawa jee sëriñ Touba Mbacke maam teew Mbaye ak mboolem na ñi nga xam ne dem nañ lool rek fan yi dem yi bari lool waaye ñu ñaanal ñëpp suñu doom yërëm leen di jéggal leen gataawal leen àjjana di dokk suñu doom ñun ñi fi def na itam ñu góorgóorlu bu baax te xam ne bis ba mën a bàyyi kon lañ doon def ci baax nañ koy wax ndax lii ñuy def jataay bu ñu amal ñu liggéey sëñ Tuubaa la xamuñ ba xam kenn ci doon suñu jataayu nag nañ am bu ko doon nag waaye nag addina kon nañ fas yéene gën a xaw bi dañu am def ko kon ñi ngi ñëw kon taw nit ñi mën nañoo toog mu toog bu agsee ñu dawal ko mu ñaanal taalibe yëpp fajul aajo bi parce que Sëriñ Tuuba dafa jël seen toolu baayam dëgg ngeen la. xam naa ñooñu xanaa. ñëpp ñun ñëpp sant Sëriñ Tuuba di ñaan Cheikh Mamadou Moustapha sama borom yàggal ko fi dolli ko fi àggale ko yéene ci lépp waaye àggale ko yéene bi Tuuba ci kanam ñuy jégalu bu baax baax nag ci yéex a agsi gi ñu yoraat xanaa ñàkk moom suñu bopp ak liggéey jamono ji rek jàppoon ko ñu jokkoo ci laaj yàgg mu xamal leen ne sëñ dafa am yitte ju ko def ba tax na teew kon noo fi teew teewaayal sëñ Abibu di wax ci kàddoom tam doon di seen laa ko xamal ci moom waaye muy doolee soññee rek danaa wax yi moom li motoon a wax nañ ko euh, ñu ngi gërëm ñi nga xam ne ñu ñëw nañ ñëpp kenn ku ne feeñal nga sa liggéey feeñal ci sa yéene la nga mën yàlla na borom liggéey bi nangu lépp yàlla na teewaat ay déwén yu bëree bëri ñëwatee dàqal bu wàttu Sëriñ Tuubaa waaye nanu dellu jaajuwaat rek takkuwaat gën a rafetaan jot yeesalaat pasté bi te xam ne kat mbir maa ngi nii gannaaw lu doon doon dàkk bu Serigne Touba kii Serigne Touba di Cheikh Mouhamadou Mountakha ànd na ci liggéey bi loolu kenn wax amatul lay amatul xanaa soññiwaat rek gannaaw at maa ngi day mel ne nen atum tubaab bi teel a bis suba la ñuy tàmbaliwaat kon nan tàmbaliwaat kenn ku ne jëlaatal saw kat dëggaat say rusi dolliwaat say jaayante ak say batteelu noo ñaan ci barke Sëñ Tuubaa kenn ku ne loo mënoon 2020 yàlla nga mën na fukkam 2021 ten dema dem ba ñëpp kumul rek na ñëpp màggal ba kumul barke Sëñ Tuubaa ni ñëpp am jàmm ñëpp am xewal noo ngi sant Tuubaa ci kanam ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan ñëpp di ñaan yàlla ci barke Sëñ Tuubaa ñi ni Sëñ Tuubaa bëgg ci dëkkam yàlla ko Tuubaa ci kanam melal ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen siyaare di leen ndokkeel bu baax a baax ci kàddu Touba ca kanam gépp xam ngeen tey jii la 31 décembre 2020 incha allahu rabi suba si àjjuma ji la premier janvier 2021 ñi ngi sant yàlla ci jeexal gi ñu jeexal at mii di ñaan mbooleen lu ñu singutu te yàlla tax la yàlla ñu ko suñu borom nangul te at mii ñu dugg di 2021 yàlla ñu suñu moom dafa mu dàqal ñu fopp 2020 bi ñu nekk si bàkk Seexul Xadim xam ngeen ne tey jii nag bis la woon boo xam ne bisu Touba ca kanam la woon ñu woon si jàmbaari Sëñ Touba yi nga xam ne ñoo liggéeyal Sëñ Touba ci Touba ca kanam te féete fii si Touba soxna yu baax yu tedd yi nga xam ne ñoom ñii taxaw sama ginnaaw ñooy ñi nga xam ne ñoo jiitu si liggéey Touba ca kanam si adduna bi bépp rawatina fii si Touba si njiitul soxna Bintu Mbàkke ak mbooleem soxna yu baax yi mu ko àndoon ñëpp ñoom ñëpp nag ñoo ngi nii teew ginnaaw bi soxna yi dajee ñu gaaral liggéey bi ñu liggéey si atum 2020 bi santante jaajëfandi kilifa yi ñaanal leen mbooleem soxna yëpp nag seen kàddu ci soññi jigéen ñi ngir ñu waajal 2021 bi ngir ñu yeesalaat positif ak pas-pas bi ba leen liggéeyoon ci 2020 bi ñu def lu kawe njortam lu kawe suñu njort ci 2021 bi dana ko jox soxna maam Fatou Mbaye mu jàllale leen ko mu soññ mbooleem kuy soxna ak fu mën nekk si bi ñu takk laxasaay góorgóorluwaat ci Touba Ca Kanam fexe ba bu ndee dugg 2000 bu ndee wegsi wegsi waxtu wi déen bu ñu si wegsee li ñu defoon 2020 ñu def lu kawe njort bàkk see waxati rawatina jigéen ñi dëkk Touba kon soxna Fatou bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah Touba Ca Kanam nuuru daara di ñu soxna yi ñoo leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfal bu baax nag gis nañ ni ñu yokkoo 2020 ndax 2019 bi moom 2020 bee ko gën kii daal jëm ca kanam kon nag ñu ngi ñaan rek 2021 bi ñu gën a jëm ca kanam rek may soññ suñu mbokk jigéen ñi ñëpp di ñu ñëpp rek di soññ sama bopp di ci jiital soxna Bintu ke suñu bàjjan di suñu royukaay ñun ñëpp mooy suñu jëwriñ ñun jigéen ñi Touba ca kanam moom nag moom mi ngi ci kanam te mi ñuy yoon bi ñu ngi fas yéene topp ci ginnaawam rek fépp fu mu kii rek ñu topp ci ginnaawam fas yéenee jëmale Touba ca kanam kon ñu ngi sonn soxna yi yëpp rek soxna Njaxat ñu ngi koy nuyu bu sëñ Abdou Lahat ak soxna Maama Touré bu sëñ Abdou Khadre ak soxna jaam borom Touba ak soxna Mbayam Jum soxna yi yëpp rek soxna Fatou Mbacke mu sëñ Abibou ñu ngi leen di nuyu di leen ziar daal ñu ngi suñ suñu bopp bu baax rek di ñaan daal 2021 bi daal lépp lu ñu mën ci 2020 ñu mën lu ko ëpp tan ànd ak ak tal ak man ak fekke yàlla sàmm ñu sàmm